ñu jëw ci wàllu corruption mm-hmm. bari na du ma dëggal dara ci wàllu corruption mm-hmm. ba tuuma laa ko mën tuddee yu ñuy wax di ci tudd nguuru Adama Barrow gi mm-hmm. ñu ñëw ci sax benn sampef boo xam ne xëy na euh, independent institution la muy AIC euh, audit report bi am na lu mu fësal ba police dugg nañ ci xëy na mu ngi ci mbir yoon duñ ci sori waaye tey ngay gis yooyu noonu tamit audit report bi ñu ci wax mu yéeme lool ci ay xaalis yoo xam ne ci allégation ma wax ma wax loolu balaa waaw waaw yooyu noonu yëpp ñu ko ciy tudd te ci time yi président Barrow la tey boo xoolee dix afrobaromètre itam wax nañ ne euh, lu jëm ci wàllu corruption ci nguuru Barrow bi ñu defee kii bi dafa dafa gën a yéeg kon dafa mel ni bari na si ak lu koy tuumaat mbiru IEC bi euh, report boobu as a parliamentarian nga gis ko euh, noo gisee loolu mbiru IEC bi ñu bari ñu se wax report ñu bari ñu see wax report bo leen laajee gis nañ hmm. kan ko wala am nañ ko day wala ne déedéet li dégg rek facebook ni la bind ki li la bind ma ci da ci wax gis nga mbir bo ci wax fo jaar nga xam ko nga gëstu lu si bir nga mëna xam audit ñew na ñi ay ci ñoo prepare sen account hmm. that's the responsibility auditeur général ñew pour audit ko te am nañ droit pour audit anybody indi indi indi indi government fii xam nga force mooy xëccoo na waaw ñun yaa independent ku nekk independent parlement sax dañ leen audit right now as we speak national audit office ñu ngi audit parlement fi ñu toll nii bu fekkee ne executive ñu leen a audit judiciaire ñu leen a audit national assembly ñu leen ñu leen a audit kon beneen institution mënoo taxaw ne waaw waruñu ma audit non non non independent nga that's fine waaye nag dañ ne seet national human rights commission sax dañ koy audit xool lan lañ lañ leen jox xaalis ak ba leen jox fan lañ ko dugal so waaye ci bañ a sori ci affaire IEC bi. ok eh, parce que report bi discuss ko si parlement bi. Mm. so du ci mën a wax dal sori. Mm. waaye man li ma gis. Mm. ak lu nit ñi de wax ci media bi. foog naa ne eh, xorom nañ ko jumboon nañ ko. ok loolu laa ci mën a. pétrole saga bi tamit. boobu tam ñu ngi si investigation bi. Ah, xam lu nekk investigation. waaw duñ ci mën a sori waaw waaye xam naa ne bu ñu demee ba bañ pare. li ñu liggéey mën nañ fa ñëwaat. mën na mën naa ñëw ak yéen ma wax leen nag lañ gis ak lan ak mm. lan ak lan ak lan fekkee waaye nag pétrole sangam fi nii itam mm. du ma ci mën a du ma ci mën a wax parce que euh, ñu si investigation bi te bëgguma wax dara lu nga xam ne dafa jeopardize euh, you know benn parti wala another parti so loolu loolu laay da waaw